أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dooli xéewal te musal ko xam ngeen ne jamono yu weesu yépp ñu ngi doon ànd ci gazwatu xaybar bi iznillahi tabaraka wa taala tey danañ jël al ibar wal izaat al mustafaada min gazwati xaybar nañ jël ay leçon ak ay waar ak ay kéemtaan yu ñu war a tiire yu ñu war a jële ci xare bii di xare xaybar ci lislaam xew-xew bu ne su amee ba jeex kii di ab jullit góor la walla jigéen war na cee def ay njàngat war na koo settantal xool lim ci war a jëlee ci ay njëriñ xool ay pakk-pakk ak ay tolof-tolof ak ay manqué yi nga xam ne moo ci dal jullit yi pour mu mën ko moytandiku bokki jullit yi bokk na ci li ñuy jëlee ci xeexu xaybar mooy ataxalli bi sabr sifatun min sifatil muslim taqoo muñ ab julit war na def muñ caqam di ko taqoo fu mu nekk di ko takk ndax kat moom muñ benn melokaan la ci melokaanu ab jullit lu mu métti métti métti loo am ay jafe-jafe jafe lu métti di lu mu tar tar tar tar coono yi lu mu bari war ngaa yëg ne yow ab jullit nga war ngaa yëg ne dangaa war a muñ xam ngeen ne xaybar yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak saxaaba yi muñ moo tax ñu am victoire muñ suñu muñul woon duñu am ndam moo tax borom bi di ñu gestuloo ci quraan di ñuy wax ne fasbir wama sabruka illa billah muñal waaye dara bu mu tax nga muñ lu dul yàlla képp kuy muñ lan moo la war a animé ci li ngay muñ mooy yàlla bu sëy bi tax bu doom yi tax bu yàgg gi tax bu mbokk gi tax bu kenn tax muñal ngir yàlla léeg-léeg nga dégg ku ne yàgg naa ci kër gi kon damay muñ yàgg naa ci barab bi damay muñ yàgg naa ci dëkk bi damay muñ feebar bi yàgg na naa muñ mbir bi moom xam naa duma ci am dara waaye naa muñ déedéet muñal ngir yàlla ndax muñ jaamu yàlla la mooy xabsu nafs alama takrah mooy jàpp bakkan bi poñe ko defloo ko lim bëggul loolu mooy muñ kon li ñuy njëkk a jàng ci xeexu xaybar mooy yonent bi ak ñim àndal di ay jullit li tax ñu gañe mooy muñ kon jullit fu mu nekk na muñ lu mu metti metti rek yëgal ne ndimbali yàlla mu ngi ñëw yërmande yàllaa ngi ñëw bi iznillahi tabaraka wa taala soo muñee rek génn ci ni yonent yi muñee woon fasbir kama sabara ulul azmi min ar rusul muñal ni yonent yi la fi jiitu woon muñee loolu la yàlla waxoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñaareel bi mooy al muslimuun دائما دعاة مبلغون لرسالة الإسلام سلما qabla lujuu ila al harb bokk na ci li ñuy jàng ci xeexu xaybar mooy jullit yi fu ñu mën a nekk ci kaw suuf ay wootekat lañu yu yàlla yónni ñuy jottali message lislaam li tàmbali nañ ko bi jàmm di am balaa xeex di am julli ñi nekk Màkka di woote ñu leen di bunduxataal di leen dóor julli ñi génn dem Éthiopie bàyyiwuñu leen ñu topp leen julli ñi dem génn Médine ñu topp leen kon jullit na yëg ne moom wootekat la fu mu mën a nekk ci kaw suuf góor la walla jigéen la xam na walla xamul am na walla amul na yëg ne moom daa iman duaatun muballighuun li risaalati lislaam ay wootekat lañ yuy wooteel lislaam tey bi jullit ñi gàttañloo ci wooteel yàlla ci la diine ju lompoñ ci la diine ji deltu ginnaaw ci la jullit ñi suufe ndax kenn ku nekk ci ñun suñ la nee lan mooy sa liggéey ci lislaam nga ni man lislaam day woote la boo xam ne dama ko bàyyeeg boroom sikkim yeeg boroom tubéy yu gàtt yi man sama yoon nekku ci ñooñ ñoo moom lislaam ñooñu nañu woote man jànguma comme jànguma waruma wax te lislaam moom ñépp ci bokk balliru anni walaw aaya jottali leen ma donte benn aaya ngeen mën yonent bi alayhi salaatu wasalaam joxe na ndigal aaya boobu yow mi ko mën nanga ko jottali ki ko mënul moo tax bokk na ci li ñuy jëlee ci xeex bi mooy jullit ñi war na ñoo xam ne fu nu mën a nekk ci kaw suuf dañoo war a jottali message u lislaam ci jàmm ak ci xare yépp dañu jàmm ak ci xare yépp dañoo war a jottali message bi loolu bokk na ci li ñuy jëlee ci gazwatu xaybar ndax jullit ñi ba ñu dugg xaybar wax lañ njëkke balaa xeex bi di am bi yëf yi demee nag ba dëgër ñu xam ne xeex a ci des ci lañ doog a xeex ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu bari ci ay barab jullit ñi bis bu nekk wax lañuy jiital ba wax ji të xare doog a am ñetteel mooy athiqa billahi taala xata fi lmawqifi lxaraj fi lmawaqifi lxaraj fa in athiqata billahi hiya masdaru lmaanawiyat la dal silmi la dal muslim war nañ am confiance ci yàlla sunu ba sunu borom subhanahu wa taala mbokk yi lu ñu am doole lu mbooloo mi bari bari bari bari lu alal ji bari bari bari lu arme bi bari bari bari dañoo war a am kóolute confiance ci sunu borom ne moom moom sunu borom mooy tax ñu am ndam jamonoy tartar lu mu metti metti metti mooy julli ñi nañu am confiance ne yàlla moom li mu wax rekk mooy dëgg ndam li moo koy yor wal aqibatu lil muttaqin inna la nansuru rusuluna yàlla nee na man danaa dimbali samay ndaw samay yonent kon jullit na am kóolute ci yàlla pas-pasam na dëgër mu wóolu borom bi donte ne ci jamono ju metti la nekk ndax kat am confiance ci yàlla moom mooy source bi nga xam ne mooy tax jullit ngëmam wér ndax kooku diineem sell na ndax diineem wér na tontu bi mooy déedéet su fekkee ne ki nga bokkal di dund rek danga am ci moom confiance massama ak sunu borom subhanahu wa taala kon athiqa mooy kóolute nga am confiance billahi taala ci sunu borom tabaraka wa taala borom màgg gi ñu wóolu ko rawatina nag fi mawaqifil xaraja rawatina ci jamonoy xat-xat ci jamonoy tar-tar lu mu métti métti métti wóolul sa borom delloo ko mbir yi wàkkiir lool ci moom ndax kat fa inna thiqata billahi hiya al masdar al maanawiyat la dal muslim mbokk yi am kóolute ci yàlla mooy balluwaay bi nga xam ne mbir yépp di mbiru jullit ci yàlla lay delluwaat mooy cëslaay mooy kiiraay di jullit ji di wéeru di ko làmboo di am ndam ci jamono ju nekk loolu dinañ ko jëlee ci xaswatu xaybar jullit ñi nekkul na seen doole lañ wóolu woon nekkul na seen mbooloo lañ wóolu woon nekkuloon seen arme lañ wóolu nekkuloon ne li nu ànd ak yonent bi lañu wóolu waaye dañoo am kóolute ci seen borom moom lañu gëm moo tax ñu génn ñu am kóolute ne moom seen borom dina leen dimbali dinañ am ndam ñeenteel ci li ñuy jële ci gazwatu xaybar min al adilla ala sidqi nubuwati rasul sallallahu alayhi wa sallam ixbaar al azamu lahu bi annahu masmum bokk na ci tegtal ak njëriñ yi ñuy jëlee ci keroog gazwatu xaybar bokk na ci liñ ciy jëlee mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk gi mu nekk yonent dëggal bi nga xam ne yaxu yàpp bu am poson dëggal na ne yonent bi yonent la yàllaa ko yónni ndaw si posone woon yonent bi dagg na booju xar lakk ba mu ñor diw ci poson ba mu fees mu indil yonent bi yonent ba mu tàllalee loxoom ne day lekk ci yàpp bi booju xar mi def yuuxu ne ko yow yonent bu lekk ci man ndax dañ ma posone loolu mbokk yi lu rëy la loo xamante ne ñépp xam nañ ko képp ku jàng siira xam nga loolu loolu nag lu ci jullit yi di jële mooy dëgg dëgg dëgg ki yonent la yàllaa ko yónni moo tax ba mu bëggee lekk ci yàpp bu am poson bi yàpp bee yuuxu ne ko yaa rasuulallah ee yow yonent laa taakul min nii bu lekk ci man li ànd na nii masmuma bu lekk ci man de ndax man mii de dañ maa posone dañoo def ci man poson yonent alayhi salaatu wasalaam ba mu woowee ndaw si togg yàpp bi nekkul tax nga def poson ci yàpp bi mu ne ko damaa xam ne boo dee ab yonent nga doo ci lekk bu fekkee ne doob yonent nga lekk ko dee nit ñu noppalu kon bokk na ci li ñuy jëlee ci xaswatu xaybar mooy dëggu gi nga xam ne nekku yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent loolu dëggu la ndax ab yaxu yàpp moo seedeel yonent bi ne ko bul lekk ci man ndax man dañ ma posone juróomeel ci li ñuy jëlee ci xaswatu xaybar mooy al yahud qawmun gadra yahud ay warkat lañ ay nit lañ ñoo xam ne warkat lañ guddeeg bëccëg ci seen sang la nekk ci seen deret ay warkat lañ yu mag a mag loolu mooy seen xàmmekaay wa haasi hiya siimatuhum mooy seen màndarga abra taarix loolu nag daanaka ci dund gi yépp la ci histoire lépp seen dund bi leen yàlla bindee ba fii nu toog di wax ak yéen yahuud yi loolu mooy seen màndarga ay warkat lañ luñ la wax du dëgg lu ñu siñanteeg yéen du dëgg danañ leen war bu ngeen demee ba ci biir loolu mooy seen xàmmekaay loolu mooy seen màndarga loolu mooy daw ci seen deret su fekkee lii am na nag kon fa yajibu dana war alal muslimu ci jullit an laa yamana mu bañ a wóolu janaabahum seen wet abadan ba faw jullit bu mu wóolu benn waxu ab yahud bu mu am kóolute ci seeni mbir bu mu leen jox confiance ndax yàlla moo la xamal ne yonent bi moo la jàngal ne leeralal la ne yahud yi ay warkat lañ loolu nag yonent bi wax na leen ci mboolem seen dund gi yépp la ba leen yàlla bindee yonent yam leen boole loon ba fii nu toog histoire xamal nañ ne yahud baaxul yahud warkat la du nit kon loolu bokk na ci liñ ciy jàng kon dina war ci jullit yi ñu bañ leen jox kóolute ba faw wa yakunu xisran min xubusihim kon dana war a moytandiku ci seenug sobe ci seenug mbon ci seenug alkande seenug salte ñoom yahud yi loolu mbokk yi bokk na ci li ñuy jëlee ci xaswatu xaybar beneen bi ci tegu di tomb bu mujj yajibu alluju ila allahi taala fi jamii al umuur bokk na ci li ñuy jëlee ci xaswatu xaybar mooy ab jullit nay dellu ci yàlla nay làqatu ci yàlla ci mbiram yépp wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasb wa ala allahi falyatawakkalu in kuntum muminin kuy wéeru wéerul ci yàlla ku wéeru fu ne keng ku la bu max nga taxaw ku wéeruwul ci yàlla ku la bu max nga daanu kon ab jullit na wi delluwaat ci yàlla dellu ci borom bi ci mboole mbiram wa ala al muslim an yadu allaha bi nasri baada al axzi bil asbaab ab jullit nay ñaan yàlla ci mboolem daje gu mu daje yéeféer yàlla may ko ndam waaye ginnaaw ba mu defee sabab yi jàpp dañoo war a jàng ba pare ñaan yàlla xam-xam waaye doon ko si kaw lal di ñaan yàlla may ma xam-xam waaw kuy xaalis da ngay dem liggéey ba pare ñaan yàlla xaalis kuy jàng dawal oto da ngay dugg ci oto bi ñu lay won nu ñuy dawalee nga jàng nga ñaan yàlla mokkal waaye tëdd sa kawlal naan yàlla naa mokkal dawal oto tëdd sa kawlal naan yàlla ma yàlla may xaalis ñun jullit ñi tey li tax duñu am ndam ci xare yi ñuy xare yéeféer yi mooy dañoo utul ngànnaay yi waaw dañuy dem ut suñu benn jaasi ñi ay kalashnikov lañ yor ba pare nga def sa ñaari raak yor sa jaasi naan dangay xeexi ji xam nga ne boo demee dañ lay rey kon danoo war a ut sabab yi sabab yi mooy ñi jàng danoo war a jàng ñi liggéey liggéey lépp lu nu war a def luy may lislaam ndam ñu def ko ba pare nag ñaan yàlla ne yàlla may nu ndam kon mbokki jullit yi juróom benn tomb yi mooy tomb yu ñuy jëlee ci xeexu xaybar fu nu toll war nañ takkoog muñ fu nu toll war nañ woote lislaam fu nu toll war na moom kóolute ci sunu boroom fu nu toll war nañ xam ne yonent bi dëgg la yàllaa ko yónni fu nu nekk war na noo xam ne yahudi ay workat lañ fu nu nekk war na nuy dellu ci borom bi tabaraka wa taala jël ay asbaab sabab yi nga xam ne moom la nu yàlla wax ñu jël ko kon juróom benn tomb yi mooy yu ñu war a jële mu nekk ay waar nekk ay leçon yu ñu war a jëlee ci xaswatu xaybar ñoo ngi ñaan buur yàlla tabaraka wa taala mu def ñu def ci ñun dégg ak topp jéggal ñu njuumte yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu